mu dëppoo nag ak dogal dogalu borom bi subhaanahu wa taala sun borom def ma nattoo du ma jàpp ci lu ma xamut lum doon duma ma ànd ci lu ma xamut lum doon ndax du ma wéy ci kumpa te sun borom dogal sama kàddu lumu mu ñàkk-ñàkk solo ay nit di ko bàyyi xel ci tarixa bi ma bokk ak ci beneen tarixa sama wajurit waxoon ne nit bu fekkee ne fu mu jaar bu guddee su xëyee mbooloo mooy topp tànkam war nay jaar fu leer euh, ma jóg tey jii euh, ànd ak sëriñ Cheikh Amar ak sëriñ Fallou bi may jógit ñi ma jëm si ci ñoom kenn yëgu ma ndax li ma doon def lu mel ne inspecté laa doon def dama doon inspecté si lii lii ñu may tudd di ko tudd lu mu doon su ma tàggoo woon ñu xam ne maa ngi ñëw waaye maa jógal sama bopp. jëm si fii nag madinatu salaam lu ma fi fekkoon it loolu lay jàpp li ma fi fekk moom lay jàpp su ma fi fekkoon loo xam ne dëppoo ak li may dégg wala liñ ma wanoon ba tax ma ne buñ leen tuddee ma su ma àggee rek ñu xam ne la ma fi fekk du dëgg kon su ma fi fekkee dëgg nag war naa wax ne la ma jàppoon kat wala ma doon jortu dëgg la maam ci ñaari ñaari ñaari maam ci ñaari taxawaay. benn bi mooy fii ma jëm si dañ koo duppee Daaru Salaam sama sëriñ maam Cheikh mu sëñ Modou Rokhaya di jëwriñ ca Daaru Salaam sëriñ seex Béthio yëkkati woon loxob soxna ayda na ko dénk naa la sëñ Cheikh fekk màggalu Touba di jege màggal googu sëriñ Cheikh Béthio waxoon na sëñ Cheikh na ko mbub mi ngay màggale maa koy ñawlu sëriñ seexanta Anta làmbu poosam génn ci fukki junni. ñoom ñetti njabooti sëñ Cheikh Béthio yi ñu ngi toog sëriñ bi tàllal leen loxo xaalis bi kenn ñemewu cee tàllal sa loxo soxna Ayda moo tàllal bu déggee li muy wax dana xam ne dëgg la sëñ Cheikh teg loxo bi xaalis bi ci loxoom ne ko damaa bëgg nga barile ko ba man ciy liggéeyal sëñ Touba loola yàgg na kon ñëw naa fi ci sama coobare bopp waaye ñëw naa fi na itam nag ci kàddug sama sëriñ moom it mu jàpp sama sëriñ jàpp goo xam ne boobaag léegi mosu ca dellu ginnaaw man nag suñ bët yi mos ta ñeent ba fii may wax ak yow suñ bët bii budut loola mos ta ñeent suñu rajo woon ci mbedd mi bu ma xamut ci ci gis nii du ma xam mayit bu ma xamut nii duma ko du ma xam fii tey laa fi mas a sama tànk waaye teraangam nag ñëw na ci man ba tàyyi te yàlla rek tax nit nag bu lay teral te xamula war ngaa dem seeti ko nag ba xam kii lay teral mooy kan surtout nag bu coow li bare ndax man damaa bëgg lu may doon mu doon lu may wax mu doon lu ma xam ndax ëllëg buñ gasee sama bàmmeel men nu man maa ciy tëdd kenn du ma wéttali du ndey du bàyyi du soxna du xarit kon tey nit ki li muy wax des na ko ko laajaay ci bàmmeel kon li muy wax war naa doon lu ko leer nañ xam ne jamono jii muy wax ci bàmmeelam la taxaw boobu nag laay waxee sëñ Blaat dafa waxoon ne fu moo ne teew maane duut fa amu yoon kon nag tey damay waxee ne maane mën na ñëw naa Madinatu Salaam fekk naa fi sëñ Moustapha Mbacke duyool yi fekk naa fi sëñ Moustapha Sylla fekk naa fi sëñ Moustapha Bousso fekk naa fi ay kilifa yu bari waaye lii de li ma mën a waat mooy kumpag sëñ tubaa moom dañ na ci waaye yàlla na àdduna dem ba kumpag nit ñi dañ ci ndax nag lu baax loo xam ne bi nga agsee yaa ngi fekk ab kuréel ci sa loxol ndi joor ñu ñu lal laytaay yu jekk teg fa xasida yu bari di ko jàng ab kuréel ne fa di durus nga fekk beneen lay loxo sa loxol di càmmooñ xasida yu bari ne fa ay tuut tànk ne fa di ko jàng ak ku xam barab bii ni mu naqaree jaamoo yàlla ak ni fi àdduna amee yoon ni fi saytaane amee doole nga mën fee lijjanti bi am fi fukk yoo xam ne àjjuma ju jot képp ñu jàng xasida yi sëñ Tuubaa yi te du dund ak njàmbaar la sàkkantuma boo ci amee ay téeméer loolu liggéey bu rëy la boo xam ne baatinub sëñ Tuubaa rek moo ko man mu war ma ne lii ñuy def ñii di ko def moom dara rey njëstal àndu ci ma xool it alxuraan ni mu amee daraja ak ni mu amee valeur ak lim man ci jullit dongo ba koy jàng nga man koo toggal ñam woo xam ne bu la président de la république doon seet si moom nga koy toggal bu la xalif général de Mouride doo ñëwoon it doo romb loola ak yam war a àndal nga togg ko yët ko dongo daara boo xamante ne bi mosulaa gis xamula te yàlla rek tax nga di ko yët ñu daw ay kilomètres di ko ci yóbbu te dañu wax ne lu yàgg dëgg la loolu tàmbali woon daaw ba ren di am te bis bu yàlla sàkk day gën di dolliku te loolee ne du koy tax ngeen di ko def ñu ne jëmmi yàlla rek tax ñu di ko def ak di ci wut ngërëmul sëriñ bi. kon yaakaar naa ne bu fekkee ne dama doon enquête si am na lu ma gis su ma doon inspecté it am na lu ma teg samay bët te lii ma teg sama bët ñi ma àndal teg nañ seen bët li may wax bu du dëgg it xam nañu dëgg man nag li sëriñ Amsatu Amsatul Xadim di wax mu Cheikh Abdoul Ahad su ma xasee jàpp ne lii ma jàpp wóor na tam wóor ma ne wóor na yàlla nga dund ak yàlla nga dee laa ci yemale bon naag baax na laa ci yemale ndax dara mënu ma caa delloo ginnaaw ndax dama koo xam kon nag e, maa ngi sant bokk yi mu fekk rawatina sëñ Daawuda Fay mii di sama xarit di sama lépp sëñ Saaliwu Sàmb di sama lépp ñoom ñëpp sëñ Saliou Mbow bu ma limee damay jum sëñ Abdou Lahad Samb mii ak sëñ euh, sëñ bu sama xarit ak ñoom a fi fekk ñëpp ñoom ñëpp sëñ Moustapha Ndoye dafa am menn at wallahi alazim booba sëriñ saaliwu dafa jox ndigal Cheikh Béthio yaakaar naa booba bu yor dëkk biit am na fa doole mu ne ko dama bëgg nga teerul ma ah, président Abdoulaye Wade am ay contre yu ne woon ci dëkk bi naan pànkaar yeeg nangam yi ci wetu jumaa jeeg tëgg meek nangam ak nangam Cheikh Béthio woo ca ma woo ma ca jannatu na ma fallu damaa bëgg nga defal ma appel ma ne ko man appelu teeru président du ma ko def da nga koy sant Mortala Fall man su jàllee ma defal la appel sa digganteeg sëñ Saliou mu ma déggal noo koy defee ma ne ko da may tànnal ay doomi ay gone yoo xam ne dana la wóor na ñii de bu dutoon baaxuk sëñ Saliou gi buñ dee sawara la ñuy jëm. ndax benn ñu doon ay criminal wala ñu doon ay raykati nit wala ay toxkati yamba mu ne maa ko koo bari le ma ne ko ñooñu nga may tànnal ba teeru ba jeexee ma woo ko mu tànnal ma ay gone yoo xam ni xel koom lañ jóge biñ dikkee ku ma ci laaj danga naan postu Caaroy laa doon fanaan kii naan daanaan fanaan mburngal ma kii naan daanaan def nangam ñoom ñoo téye di waxtaan ci naxjul xadaa il xaaj maanaam teggini murit ci lañ doon waxtaanee. ba Seex Béthio alu ca bis booba daal di téléphoné ci rajo bi na ma yow di yóbbu nga ma foo xam ne ak cant laa koy soppi daal yónnee naa ñeent fukki nag daral ñëwal jël sa àll gaaw bu émission bi jeexee ma xam ne kon kii da daan fekk ndab lu tilim mu raxas ko ba mu set mu jox ko sañ bi ne ko duyal da daan fekk jëmm ju tilim mu raxas ko ba mu set ni sëñ Tuubaa di def nga xam ne day fekk koo xam ne sawara yaayoon na ko ba noppi mu raxas ko ba mu noppi tegaat ko ci yoonu àjjana na ko laggal tàbbi àjjana liggéey bu mel noonu nag du du seeñ seex beeco du soxna ayda sëñ Saliou doomi sëñ Tuubaa moo duti caaxaan te defarug sëñ Tuubaa dutu yàqu kon lii nga xam ne fekk nañ ko tey jii ma ñëwoon ngir xool te lu ma gisoon rek loolu laay jàpp ndax taggu woowu ma soxna ayda gisee ba bisul ba waxtu wi gisanteeguñ te it mosuñoo gisee woor na sëñ Daawuda Fay mi fii ma koy waxee itam bu ma noppee man damaa jóg ñibbi ndax daam am lu ma doon seet si rek te dama wut ay seere ànd ak ñoom waaye lii ma fi fekk genn jaamu yàlla gu ko féete kaw amut li may daal mooy yàlla na ko sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla gërëm waaye yàlla na ci yàlla nag fab leer gépp sotti ko ci ruuxu Seex Béthio ndax xam naa ne lépp mooma soxna Ayda dama ko daan wax bu ma bu masaa jot ma seen wala ma jot saaliwu wala ku ma jot ci ñii dama naan ko ana yaayi donga yi loolu leer na leen yaay yaayi donga yi ndakate boobu moom jàpp naa doon yaayi donga daara yi moom jàpp naa doon yaayi donga daara yi te nag ku ne xam na sëñ Tuubaa alxuraan ak fi mu ko tegoon jàngalekatub alxuraan ak fi mu ko tegoon man nag adduna duma ma yóbbaale ci am riir ndax riirum adduna daa bari te seytaane bari doole waaye nag jullit bi moom saa yooyu yëkkati kàddu di ko seere ci moom na doon loo xam ne bu ëllëgee bu ngeen taxawee fa kanam yàlla doo ko mën a doo ko mën doo ca rus te loolu rek moo ñu fi andi woon noo ngi leen di sant nag bu baax a baax a baax di leen gërëm comme nag daaru salaam lañ ne man daaru salaam laa dëkk sunu cërub daaru salaam la euh, lépp daal yàlla na salaamee barke Cheikh Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah